Mohamed Arnaud attaque les Camerounais maanaam dal na ci kaw Camerounais yi ba sëpp jalañ à cause de Ousmane Sonko ak kii di Bassirou Diomaye fay ndax Cameroun boo fa demee la fay coow mooy diyo Bassirou Diomaye fay ak ki la nga xam ne ah, daanaka moo nekk kii di président Ousmane Sonko liggéey bu ñuy def ak fan jóge ca kaso ak jaar-jaar yi nga xam ne daanaka moo yéem àdduna wala gal kàpp loolee ma ngay tasaare Cameroun moom nag li tax mu attaqué Cameroun yi lu tax ngeen di royandoo bis bu ne di wax ci kii di Bassirou Diomaye Faye jaar-jaaram président président ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko président lu tax loolu tey fii ci Kabirou daanaka am jafe-jafe yoo xam ne daanaka ñu leen ñu nu jàpp ni ñoo leen gën a garaaw ña nga fa loolu lépp danañ ci indi ci aw xët yu yaatoo yaatu yow mi di ma seetaan maa ngi sàkku yow abonnement amul taxaw ñu continuer ak ki nga xam ne mooy Mohamed Arnaud Hino li ko mitt tey jii yebbi na ko ci ay kàddu ci Cameroun yi nga xam ni foofu foofee mal yi daanaka président Ousmane Sonko la ñuy waxtaanee. lu tax ñu koy waxtaanee ak naka la mooy Camerounais yi dañu jàpp ni maanaam li am ci Sénégal yaakaar naa ne loolee euh, lu ñu naan maanaam liggéey bu mucc ayib bi nga xam ni. kii nga xam ne daanaka moo nekk président Ousmane Sonko daanaka maanaam tayle bu mu tayle boppam moo président Diomaye fay ba dem kaso ngir lan mbégteeg sénégalais yi nga xam ni ñoom lañ bëgg ñu am dëkk bu baax dëkk bu tegu ci yoon dëkk boo xam ni lépp loo bëgg day yomb loole nag daanaka di liggéey boo xam ni président Ousmane Sonko ak président Diomaye gis ngeen ni Sénégal jaral na leen ñu dem kaso ba nu génnaatee nag maanaam seenu pay mooy maanaam dem waaxu dugg ndànk pale ngir liggéeyal sénégalais yi loole nag Cameroun yi yaakaar naa dafa nekk loo xam ni lu leen la nekk loo xam la ñu ciy wax nag guddeeg bëccëg moom mii nag di Mouhamed Arnaud Hino daal di leen di attaqué tey nag ni leen maanaam tey jii fi ñu nii bu ñu xoolee fii ci Cameroun bari na ñoo xam ne yaakaar naa ni ñu ngi nekk ci biir kaso bi ku ci mel ni Hervé euh, ki ci mel ni Olivier euh, Bibu loolee tamit daanaka bokk ci lu gars yi lijjantiwul loolee nag naqari na leen bu baax a baax ma wax leen lenn wax dëgg yàlla liggéey bi nga xam ne ñaar ñi liggéey tolluwaay boo xam ne nit liggéey na ko ci Afrique gi ñu nekk kon loole na ko nangu beneen bi mooy Seydi Gassama mi nga xam ne tey ji daanaka fi mu toll nii dafa jël kii di président Ousmane Sonko jàpp ni moom moomee di ki nga xam ne mooy président wax dëgg yàlla maanaam fii nga xam ne daanaka moo nekk ci Sénégal taxawaay bu mucc ayib bi nga xam ni am na ko te it maanaam bi nga liggéey bi nga xam ne maanaam comme ni ko ñëpp di waxee rek kenn comme ci man di doon ak li nga xam ne subi na ko ci wàllu violence ci digganteem ak état loolee amul benn doomu aadama boo xam ne fii nu toll ci Sénégal biir nga lu métti loolee moom mi di Seydi sama nag jaar fa félicité waale ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko waaye nag dafa am loo xam ne gars yi lu cuqur mbuuj la benn dugub bi tey laa leen di indi mooy lii nag dama bëgg nag mu nekk maximum de partage ci gars yi tey ñu bàyyi ko xel ndax Sénégal lañ dëkk te dàll yi nag ay sénégalais koy liggéey ma sàkku ci yéen ngeen partagé vidéo bi di daal lii président Ousmane Sonko soloon bu ko defee képp koo xam ne yaa ngi di defar ay dàll ñun ñi dëkk Sénégal ñuy jënd ci yow ay dàll ndax xaalis bi du génn Sénégal dërëm bi du génn Sénégal ndax dàll yi ngeen di commandé réew fii ci Sénégal dàll yu ko gën a cuqur boot mi ngi fi tege kon ndaw ñi di liggéey bëgg ko jënd seen i dàll yi gaaw leen partagé vidéo bi ñëpp jot yi bu ko defee dàll yëpp mën a jar ci Sénégal